jëf dialogue national bi ñu doon def ci réew mi la ci tukkee soleil national nee nañu tënk nañu ko ba jox ko président national ñaari téeméeri recommandation ak juróom-ñaar fukk ñoo ca nekk keroog samedi ci lañ gonte woon am daje ca palais de la république président de la république rafetlu fa liggéey bi nga xam ne juróom-ñetti commission yi def nañu ko ci dialogue bi Sud Quotidien nañu lu ñeel validation conclusion yi jugee ci dialogue bi maanaam jëmmal ci taabali njiit réew mi mi ngi ñuy xamalit ne moom Macky Sall jamono ji moo yore cëggal guyam gouvernement bi am na benn semaine ngir déposer texte ba ci assemblée nationale ci procédure d'urgence am nañu fukki accord ak ñaar ci wàllu politique bi ak ñeenti désaccord l'observateur xëy jël conclusion yi tukkee ci dialogue national bi teg ci xëtamu njëkk di ñu ko càmbaral biir ak biti ba jot cee def ay contre expertise mu di modification yi war a am ci code électoral bi xalaatub service militaire obligatoire bi ñuy waxtaane ci waxtaana ko dugal ko ci conclusion yiy jébal njiit réew mi ana lu ciy ngëneel li na bu ñu tabaskee bu nuppi dina wax li mu ci nar Le Quotidien gis ne Macky am na lu mu nar am na lu muy rumandaat nee na bu ñu tabaskee ba pare dina wax ci candidature bi ñuy lam-laame ak di ko jaabaajonge ci réew mi te it dogal bu mu ca jël da koy assumer lu jëm ci bokk Karim Wade Khalifa Ababacar Sall ci élection présidentielle 2024 yi Walf Quotidien nee nañu ñaari kaay président Macky Sall jalax na ko député yi Les Échos dañu xamal présidentielle bi kenn xamagu ci lu leer kenn amagul lu wér péng ci ndax Macky day doon candidat ci présidentielle yi am déet suspense googi am ci candidature bu Macky bi Vox Populi nee nañu boromam di Macky da koy wéyal ba ñu tabaski ba pare la Sénégal nañu dialogue national ba jeex na ñi doon xaar ci njiit réew mi mu wax lu leer ci ndax dafay sampum dëndëm ci élection présidentielle yu 2024 am déet ñooñee nañu tari sóoratul muñ wanaa ko toog makkatal mukaram dem na aji ji journal Tribune nañu jëlli bi jarta guddal Macky dafay déclarer candidaturam ngir wu troisième mandat fi mu sukkandiku joggi fa ba tax mu gëm ne Macky day sampum dëndam ci élection présidentielle yi di ñëw moom journal Tribune mi ngi ñu koy leeralal ci page cinquam yeneen yu mu wax keroog ca ndaje moom moom njiit réew mi réew mi quotidien nee nañu mooy événement yi xewoon ci réew mi ci ndoxtal weer wi président de la république nee na li a a yeew xew sursuwi nañu waaye yeewi askan wi woowoon askan wi démb ci dimanche ji fële ca cité kër góor gi ngir ñu dem tëbal blocus ba ñu def Ousmane Sonko dajji barrières yi génne Ousmane Sonko biir këram opération bi dafa mujj la ji dem nañu cité kër góor gi waaye takk ndeeru Ousmane Sonko sax gisuñu ko muy Cheikh Tidiane Dieye di Déthié Fall di Moustapha Guirassy di Maymouna Bousso Cheikh Tidiane Dieye ak ñoom docteur Cheikh Dieng sursuwi ne nañu alkaati yi ci buntu kër Ousmane Sonko ñu leen sax ñu wax ak ñoom daanaka dañ ne cëpp ne jalañ cité gi gaañu dóor leen ay grenade lacrymogène ñu toppaat seeni tànk l'observateur nañu deful dara lu dul lajj li waay yeewi askan yi woote woon mu di opération yeewi Ousmane Sonko askan wi ñu ci woo woon ñoo lànk lañ leen ci tegal leader ya fa tegoon seeni tànk ay grenade lacrymogène moo leen fa jëlee am na it ay député yu ñu fa teg loxo militant yi ñu doon woo ngir ñu ñëw jàppale leen ñu dem yeewi ji Ousmane Sonko militant yi wan nañ leen démb na ñoom dem ci daral yi yeewi fa xar mu ñu yeewal seenu njaboot la ñu gën a tal tukkiteel àdduna ca kër Mbay Fall bi libération Malang Sané ab auxiliaire de police boo xam ne jamono ji ma nga ñu téye ca police bu mbaaw jabaram moo ko bett muy violé